wa bébé li moom damaa dem ci marché ba rek jaar ci soda konte rek nak mu yak ma ba ma yàq yaxet fas yéene ñoo yak la mu ma damaa am samay bax te yene lako faral ma bi bi may monote te moom bëgguma nga bougé dama la fasiyene yéene rek di la bëgguma nga bougé tay nga bi moy bu ko yagga Te buku malah dara yag. Kalau bish, ini main nuare balan. Dah kena kan sekulur lah. Mau tak lagi mau jam jeli nuare pelan yang ni Di mana mau bermalak balan lah. Mak yag gagis. Tidak malah fasih ni tu ni. Isn't this a bit? How many years can I wear man du ma du ma ko woddoo damay jël rek defal ko nii sàng la ko bëgg nga taasal ko gis nga lu weex taasalal ma ko rek tey moom xam naa kontaan moom tey moom xam naa moom ah kontaan nga tey moom kontaan nga moom ah cest à li tax nga xam ne li doon wax rek moom laay waxaat tey yow nan la bantiloo mën a nekk ci néeg bi nga koy fay bi mu upp ak wantaay lii li nga xam ni amatul mag ñi sax defatul boo ko bu lii yëpp romb naa dem marché ñu koy jaay kilo fanweer lii bi tàkk bi kenn xamul lu mu doon ay cax xale nga dajale ko naan la ay monote yow ko danga mën a kenn man yow booy déewoo guma ku la séddi nga ma sàng nga xam ne néew yëpp ba lii la leen sàng nga ma koy jox naan ma ay dama la koy sàng xoolal ni nga toll ak man ni ma toll nga war a dem def régime ñu ngi fii toog di ma bëgg a rey sama yaay ma tooñ xadi xoolal ni nga mel ak ni xoolal bëgg dim bi ngay jéggi fii nga yéeg sama dënd ba tey daa rëcc. dama lay wax nag li nga wuuteeg ndey ak

leneen la dafa wuteeg yow ci bépp côté te muy benn xeetu parfum boo xam ne si moom laa ko noppee am ma manqué yow xaw ma góob ngay xeeñ.